boo xam ne euh, taxawaay bu leer lay euh, doon ñu ñëw ci xibaar bi nga xam ne rek dab nañu mu di Cheikh Mbacké Ndiaye proche du président Macky Sall euh, moom nag mu nga fële ci section de recherche bu diwaanu Colobane ñu ngi koy daal di déglu pour escroquerie foncière mu jëm ci wàllum li nga xam ne rek moo di wàllum suuf la ñu koy daal di toppee les premiers éléments de l'enquête relèvent nos sources révèlent qu'il a qu'il a accepté de payer le montant dû à Siw Mwendal fu ñu toll ni rek Mor ñenn ñoo xam ne rek dañu nekkoon ab jege ñaale président sortant ñu ngi wéy Porokhane doon ne benn li ko waral bokk na ci ay plainte yoo xam ne eh, ñu ngi wéy di leen ko plainte mu soxalit wàllum li nga xam ne rek moo di suuf su suusee sax ci fàttali eh, moom premier ministre jëloon na ab arrêté wax ne nañu koo daal di lëj xool ko saytu ko ab commission ad sax la daal di sàkk rek ñu fas yéene koo daal di taxawal lëj mbët wàllum suuf soosee kan moo ko am naka lañ ko amee naka lañ ko yoree eh, bu ko defee askanu Sénégal xam lan moo ci am lu ci amul ci noonee sax waa assemblée nationale ñoom dañoo wéy di décliner boobu li nga xam ne rek moo di ab bokk seen bokkaay ci wàllum commission ad hoc boobee mu mel ni nag nag Mor am na keneen ginnaaw ki nga xam ne rek moo di Adama Faye doon koo xam ne it moom ab jege ñaale soxna wu président de la république la woon di soxna Mariam Faye mu mel nag am na beneen responsable di wuyoo ci Cheikh Mbacke njaay fu ñu toll nag jàppal ne ñu ngi koy déglu ci section de recherche. waaw euh, mu nekk ay information yu mujjee wàcc yoo xamante ni dafay ñëw par rapport ak euh, li ñuy tuddee en tout cas justice moom moo nekk wéy di def euh, liggéeyam être nag li ci xaw a compliqué mooy. ni mu nekk proche bu président sortant kon admettons que ni euh, le président sortant moom moo nekkoon wala moom moo créé woon désordre bi nga xamante ni amoon na en ce qui concerne peut-être lu jëm ci wàllum foncier ak yu ni mel déjà loolu daf ñuy yóbbu ci engagement bi nga xamante ni le régime nouvellement élu am nañ ko parce que aussi euh, dama jàpp que ni souvent mbir mi aussi dina am fu mu toll muy boo fekkee benn désordre pour nga mën koo pour nga mën a ba mu nga ordonné waat de nouveau loolu am nag mooy que ni xamante ni yu ni mel la ñu mën koo yeesalaat tellement que euh, régime bi fi nekkoon dañoo nekkoon ci anam boo xamante ni peut-être ñoom njortu ñoon que ni parce que le président acte yi mu doon posé à l'époque ñun ñëpp xawoon nañ am njort que pareegul euh, de façon directe comme indirecte pour quitter li nga xamante ni moom mooy taaba bi commencé def de sorte que ki gën a nekk euh, en tout cas ki nekk le chef de l'opposition nga fexe ba euh, écarté ko peut-être yow aussi tamit nga dem ba dernier moment nga doog di wut sa benn candidat et tout ça est-ce que peut-être taxawaay bi askan bi amoon mais dama jàpp ne cas bi mooy que am na tey wala démb déggaat nañ yeneen comme peut euh, ki nga xamante ni frère la ci en tout cas euh, euh, l'ancien première dame tout ça dama jàpp ne yooyu yëpp dafa nekk ay mbir yoo xamante ni yu ñu war a régler waat la parce que Sénégal dañoo war a dépasser li nga xamante ni moom mooy toog def lu la neex ba dem jot nga dem ñeneen ñi bu ñëwee aussi tamit voilà ne état continué la bàyyi lool nekkaat ci ay mbir yoo xamante ni continué ci loolee tout dama jàpp ne nag loolu tey Sénégal bu demee ba toll si moment bi parce que amoon nañ ay dirigeants yoo xamante ni dañoo ñemewuloon teg seen loxo fi nga xamante ni moo doon metti te jàpp naa ne nag njuuj njaaj gi muy sàcc geeg peut-être euh, luubal bi et tout ça bokkoon na ci li nga xamante ni moom moo teewoon Sénégal léegi nag est-ce que tey régime bi ñu am lan moo gën a nekk fu ñu gën a accentuer li nga xamante ni mooy seen liggéey muy ci la ñu tuddee ci jubbanti te jàpp naa ne nag pour jubbanti boobu noonu am mooy que ne muy neex muy naqari dañuy def de sorte jël seen ay responsabilité xam ne dafa am lu ñu promettre askan bi ñoom déjà seen particularité moom mooy ay loxo yu set <laughs> le président Diomaye sax en pleine campagne doon na ko campagne yi kan ngeen ñan ñoo yor loxo yu set et tout ça ça veut dire que ñun ñee a nag yóbbu muy ommat ñu ci parce que aussi jàpp naa ne lu mu doon wax la waaye aussi tamit moment bi ñu toll mu ngi commencé di poser ay actes yoo xamante moom mooy détournement ak yu nu mel ça veut ne y problème léegi nag nan lañ mën a def muy am koo xamante ni même su nekkee dafay ñëw lijjanti ko une bonne fois lu jëm ci peut-être développement au vrai sens du terme xaw a am lu des jàpp naa ne lu gën a soxal wàllum développement moom mooy d'abord nga jubanti boo jubantee nag keneen bu ñëwee dafay yomb ci moom parce que à chaque fois mu rappelé ko que ne peut-être euh, général de Gaulle bi muy ñëw France y avait le désordre mais moo lijjanti de sorte que mu mën a teg France ci axe boo xamante ni keneen ku ñëw da ngay ci même lancé boo xoolee aussi tamit Inde noonu la meloon avant Gandhi mais après Gandhi am na boo xamante ni am nañ ko et tout ça nga dem Allemagne noonu la demee woon ba màkka ci sallallahu alayhi wa sallam ça veut dire que ni il faut aussi tamit dëkk dafay am à chaque époque benn phénomène boo xamante ni bu ñëwee kooku moom mooy jubbanti dëkk bi teg ko ci ay orientation yoo xamante ni yu mucc ayib la léegi nag développement bi ñuy xaar ak avancement bi nag loolu boo loolu amee rek ba li nga xamante ni mooy sunu ay valeur fondamentale moo ñu lal en question de développement politique et tout ça keneen nag bu ñëwee dafay continuer ci li nga xamante ni moom mooy lancé boobu mais Sénégal wax dëgg yàlla euh, yaatuwul ci superficie yaatuwul ci li nga xamante ni moom mooy population bi amul lenn loo xamante war nañu mën téye surtout dëkk boo xamante li nga am ci suuf bëri na li nga am ci ay ressources aussi mënuñu ko euh, xayma wax dëgg yàlla ñoo am problème parce que nekkul suñu ay coobaree bopp mais parce que amoon nañ ay dirigeants yoo xamante ni dañoo préféré woon seen ay poste en tout cas à la place de li nga xamante ni ñoo si war a jariñu su boobaa nag y a problème espérons que ni nag am nañ régime boo xamante ni fu muy gën a liggéey nekk ay ay en tout cas ay mbindaan wala ay serviteur servir li nga xamante ni moom mooy seen peuple li ci des nag moom mooy ñu jima nag engagé wu nan lañ mën a def ba jubanti dëkk bi te jàpp naa ne si loolu lañ nekk moo tax aussi lu ñuy saluer la taxawaay bi daal nan la moom mooy lu nu mel jubanti teg mbir yi ci li nga xamante ni moom mooy yoon parce que la Sénégalais di xaar si ñoom jub jubal euh, mu ngi noonu ñu ñëwaat ci point de presse nag ki nga xam ne rek moo di Pape Abdoulaye Touré ak Falla Fleur eh, ñoo ko sàkkoon pour ñu waxtaane lu jëm ci wàllum politique ak li nga xam ne rek moo di wàllum yoon ak yoonale ndaje moomee nag ginnaaw bu doomu eh, franco franco espagnol bi daal di jëlee kàddu di Juan Branco moom nag nee na daal li ko gën a métti bokk na ci wàllum diabolisation bi nga xam ne ñu ngi ko commencé woon door eh, jëm bu jëmale ko ci jëmb ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko te loolee nag mu mu ngi dooree ci ab procès boo xam ne rek amoon na fële ca cour de la justice bu CEDEAO kerek nag nee ginnaaw bu mu déggee ki doon dal di jiite appliqué boobu la àtte di wax que ne fekk nañu ab sperme ci ki nga xam ne rek moo di ci soxna sosé di Adji Sarr ne na loolu daal lu ko métti woon la te day woon que rek Ousmane Sonko mi du Sénégal rek ñoo ko songoon waaye dafa mel ni àdduna wërngal këpp dañu taxawoon temm rek pour daal di ko diaboliser daal di yàq deram ba dootul jarati dara ci àdduna wërngal këpp mu doon ay kàddu yoo xam ne moo démb la ko daal di yëkkati moom doomu franc espagnol Euh, mel ni ku nekkoon ci benn benn téléfilm boo xamante ni souvent euh, xam nga traditionnellement parlant bu fekkee da nga toog euh, en tout cas sa famille borom kër gi am na loo xamante ni du ngeen ko mën a seetaan publiquement wala ndax du ngeen ko mën a déglu Sénégal foofu la ñu yóbbu woon yóbbu ñu si benn level boo xamante ni. tey dañu doon am problème parce que dafa am loo xamante ni dafa yàgg a mës a nekk ay sujet tabou nga xam ne déjà euh, projet projet la mën doon mais teewul da ngay dégg am yoo xamante ni mel ni dañoo bëggan ji moom moraliser li nga xamante ni moom mooy mbir mi et d'ailleurs sax Euh, la concerné nekkoon na au courant ci lool kan ni dañoo bëgg a benn projet moral waaye du leen ko may et tout ça confrontation bi du ma ko def ñenn ñi naan daa war et tout xam nga tey bu ñu demee ba Sénégal tollan ci fu ni mel tellement que ni ñu dem ba parce que aussi tamit euh, du point de vue médical amul lii parce que lépp lu ñu war a exposé dañ ko exposé de manière très claire mais est tey ci loo xamante ni ñun ñëpp euh, mujjee nañ xam que ni en tout cas selon la justice et xamante ni moom lañ mas a am xel ñaar que ni dafa nekk ay mbir yoo xamante ni avance pour ji ma éliminer en tout cas benn adversaire politique euh, tey dama jàpp ne tey loolu peut-être euh, Juan Branco dafa euh, ñëwaat ci lu ni mel <laughs> mais Sénégal vraiment ñëpp a doon ñaawlu kàddu yu ni mel tellement que ni dem ba xaw a désacraliser sunu ay valeur dem ba xaw a aussi tamit neenal wala yàq li nga xamante ni moom mooy deru jigéen parce que dama jàpp ne tey liñ si jubla woon pour jima yàkkal Ousmane Sonko du point de vue moral pour jim ko ko wala tuutal jim ko oyofal jim mujjee këpp waat ci ñoom tellement que ni euh, gis nañ révélation yi mujjee juddu ci ay audio yi mujjee juddu ci yu mel ba ñu dégg ci loo xamante ni da ngay xam ne sax mënootee leen a teg di teg Ousmane Sonko moom mooy Ousmane Sonko mujjatul nekk sax li nga xamante ni moom mooy seen nawle moo tax souvent ñu naan boo yéene rek yéene lu baax ku tedd gi ne boo yéenee ñëpp jàmm bu kenn amul jàmm te yow di nga am jàmm ça veut kay nag ñoom li ñu yéene woon Ousmane Sonko <laughs> la daam aussi tamit sénégalais yu a ñaar si jigéen ak tout ça ma jàpp na ne loolu ay mbir la yoo xamante ni ñaatuñu yàlla mu am mais comme passé na li ci am ba des moom mooy réussir duñu li ñu bëggoon peut-être ci lu mel noonu sax la yàlla gën a dogal Ousmane Sonko gën a nekkaat ci euh, xolu sénégalais yee tout ça ba tey li nga xamante ni am na ci mais seen yéene dëgg wax dëgg yàlla moom moo nekkoon euh, même suñ ko condamné wul aussi parce que amoon na benn code de popularité bi mais teewul ñu jim koy yàq par contre nag souvent yàlla booy defar moom day mel ni koy yàq te li nga xamante ni ni ah, moom nag wéy rek di àddu euh, ci euh, coow li nga xam ne mu ngi woy di wulle ñaay fii ci diwaanu Sénégal mu soxal wàllum président de la République dafa war a seppi ab loxoom ci wàllum conseil supérieur de la magistrature moom ki nga xam ne nag ab avocat ne non non moom àndul ci benn yoon te loolee saa amee rek mën na indi ay tolof tolof ci uh, doxalin réew mi waaye bu ñu jëlee justice bi gën ko jox yenn kattan gën ko dooleel su boobaa nag loolee dina doon ab mbir bu doy waar li gën daal mooy président na wéy rek di des ci li nga xam ne moo di ci conseil supérieur de la magistrature mu mel nag moom uh, ki nga xam ne moo di spécialiste jëm ci wàllum droit di maître Bamba Cissé Lo d'accordul ci président dal di seppi ab loxoom ci wàllum conseil de la magistrature waaw uh, xam nga depuis depuis conclusion dialogue bi bi koy tiré laa amoon li nga xamante ni moom mooy Euh, pensée bu ni mel parce que dama jàpp ne tey la toxoon bu njëkk sénégalais yi doon ko bañ parce que à l'époque on avait des présidents yi nga xamante nii voilà dañuy bëgg fenn fa nekk ñu teg fa seen loxo lenn lu nekk ñu nekk en tout cas au cœur te loolu vraiment euh, yaakaaruñu ko ci président bi fi nekk moo tax man confiance moo taxoon ma ne carrément bu fekkante ni dafay wéy continuer di changer dina tax à que mu joxewaat ay orientation yu bees mu joxewaat ay instructions yoo xamante ni euh, dafay dëppoo ak peut-être la vérité absolue parce que loolu la ñuy xaar ci ñoom aussi euh, loolu la ñu won jusqu'à l'épreuve du que Euh, politique lañ nekk te aussi mënuñoo def li nga xamante moom moo passé politique sans euh, dépend nag ci selon ñoom li ñu définir la politique bu fekkee ne dañoo ñëw pour servir jàpp naa ne vraiment loolu mooy li nga xamante ni loolu la ñuy xaar beneen expert aussi waxaat na lu ni mel que dama jàpp ne tey euh, bu fekkante ni am nañ benn président de la république son excellence Bassirou Diomaye Faye li ñuy gën a xaar ci moom wala comme ça nga ne waxee seen particularité moom mooy lan moom mooy kat am na l ñu leen di xoole ci kanamu ñi nga xamante ni peut-être ñoom ñooy yeneen politiciens yi te am loo xamante ni buñ ko réussir mooy seen ay bëgg-bëgg mën na romb sax li nga xamante ni moom mooy ñaari mandat président mais mën na dem sax ba ñu xaw a créer benn mbir boo xamante ni lu doy waar lay doon ça dépend nag ci premier résultat yi nga xamante ni dinañ ko am est-ce que nag bu fekkente ni euh, les questions judiciaires les question politique ak yeneen questions yi def nañ ci loo xamante ni dañ cee gis transparence parce aussi tamit dañoo war a benn justice bu intense benn justice boo xamante ni justice bu mucc ayib lay doon bañ a nekk paaka ñaari boor mais benn justice boo xamante ni voilà dafay am benn benn benn benn bande boo xamante ni askan bi dinañ am si ñoom yaakaar que ça soit nga nekk opposant wala nga nekk ci euh, mouvance présidentielle te jàpp naa ne loolu nag pour mu am il faut aussi le président parce que jàpp naa ne type de président yi ñu amoon bu njëkk bu fekkante ne da nga bëgg wala lii laa bëgg kii maa ko fal fii kii maa ko def fii léegi bu mbir amee nga ne voilà euh, yow à travers ce boo demee sax ba xam ne njàq mën na am nga ne damay koy euh, dama koy euh, dénommer nommé waat keneen ci bopp li nga xamante ni moom mooy tel kuréel ça veut dire que ne yaa problème mooy que ne bëgg à chaque fois rek ki ngay nommé a nekk koo xam rendre service